fii ñoo leen di sant te leen di gërëm bi nga xam ne koy taxaw te di ko taxaw ci lislaam te di ko taxaw ci euh, euh, li xam ne mooy dundal gën a dundal yoonu murit ndax Sëriñ Tuubaa amul lu alxuraan ndax moom dafa liggéeyal yàlla yonte bi parce que ba fay ko alxuraan dénk ko ko moo ko ko joxee mu di ci liggéey ba lépp lu waay am ci Sëriñ Tuubaa bi tey bii moo tax nga moo tax nga am ko ci waaw ndax Sëñ Tuubaa lu mu am ci yàlla yóbbu bi weeru safar fukki fan ci la ko am ab ab ab yi itam kenn ku nekk ku am dara ci Sëñ Tuubaa bis bi ci bis bi nga ko amee kon nag bu nga yëgee alxuraan te alxuraan da ko dénkoon Sëñ Suwaybu muy wéttalam di léppam di di di di di ndigalam kon nag bu ngeen wëlbati ko loolu ngeen ngeen dikk teewee ko fii bëgg nañ ci loolu suñu xol sedd na ci bu baax a baax noonu lañ ñaanal sa borom dafa lay ci taw fexe àdduna ak yoo laaxee li koy fas ak sëñ Tuubaa li si ne bàyyi na ko sëñ Mouhamadou Basir muy jottali sama kàddu. jërëjëf jërëjëf. لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد المجين وعلى اله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين بوكي جولدي تدي في تيو بوكي طالبي في تيو نيجي يكيتي سونو كادو سي ليغرال سيرين شيخ احمد مبكي ميغا خاني موي خليفته الشيخ صهيب مبكي يالنا سونو بوروم دولي اي لير تاسون سي باركام ak ci ndigalul jëwriñam yi teew di Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moom Serigne Souhaïbou ak Serigne Abdou Samane Mbacké mi nga xam ne mooy jëwriñi barab bi mu wax ma ne naa boole kàddoom waxaaleel ko kàddu gi rek sant rek lay ak ngërëm ndax day mel ne mboolem luñ ci waroon wax bi nga xam ne weer wi tàbbina ba léegi suñu bokk yu tedd yi di suñuy doom di suñuy jarbaat def nañ ci liggéey boo xam ne ñëpp ko rafetlu kon lu ci waroon ci fàttali ci doxeenu sëriñ bi ak ñi nga xam ne ñoom la àndaloon ndax nii ko sëriñ am satu jaxate waxe léegi rek ayaa xaadimal muxtaari laa tansa saxbahu fa man yansahum fal mathu mathul muxataw sëriñ Tuubaa itam loo ko bëgg a bëgg a wane te wane woon ñi mu àndal doo xam dëgg-dëgg sëriñ bi mooy li suñu kilifa bu baax nga Cheikh Saliou Mbacké radiyallahu taala anhu daa wax ne bu ñuy wax yoon wi mooy seex si ndax bu toon loolu sëriñ Tuubaa ko njabootam la wax kon ñoom itam kenn waru leen di fàtte ci liggéey bi ndax ko xam ni ñu àndewoon ak sëriñ Tuubaa ak fa yoon yi tolloon ba ñuy jaayanteeg sëriñ bi ngëm-ngëm ak basiiratu képp lañ ci dugaloon ak jaayante waaye boo kenn xamugutoon ne ñoom li leen ci fekk dana leen ci fekk tey kon yéen waa daairatu xuratul ayni ak mboolem sëti sëriñ soxay buy ñu ngi leen di sant bu baax a baax te di leen gërëm di rafetlu seen taxawaay ci koor gi ak waxtu bi ndax lii ngeen di def kat yoon wépp la war waaye nag sëriñ Touba def na njabootum gépp ñuy lenn ñu ci am positif dogu jaayanteeg sëriñ bi du ko def rek day yóbbaale ñëpp kon day mel ne fardu kifaaya la boo xam ne bu ko ñuy defee rek mu yóbbaale ñu ci des kon cant sant nañ leen bu baax gërëm nañ leen dalal na xelu ñëppit ci yoon wi ndax day wane ne mbiru sëriñ Touba lu mujj ñëw rek gën a jag la ci kanam ndax ñoom ñii dama leen di faral di yéem léeg-léeg sax ma wax ko suñu du sant ko mbirum suñu de li ma ci gën a yéem mooy boo xool ñi nga xam ne yéen leen jur sax ñu ñii ñëpp ñoo ñu gën loolu tawféex la te feneen fu mu doonoon rek day mel lu gën a mujj gën a sew waaye mbirum suñu Tuubaa lu gën a mujj rek gën a gëm suñu Tuubaa gën a bëgg sëriñ bi gën a seey xasida yi ba day mujj day mel seen dund gépp dañ koy jaay da jox ko suñu loolu nag du seen pàgguteef pàgguteefu Sëriñ Tuubaa la kon nag ñu ngi ñaan ci barke Sëriñ Tuubaa yàlla suñu borom dimbale nongal nu boole ci njabootu Sëriñ Tuubaa te bañ ko génn mukk ñu ngi ñaan ci daraje weer wii nga xam ne mooy bis bi fi sëriñ bi bàyyi ko woon di liggéey rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam daje fa ak natt yu rëy yoo xam ne ni mu ko waxee ci gisa u am na ci yoo xam du ko tudd ngir ay teggeen diggam boroom ndax ñu fàttalikuwaat bu baax a baax la mu waxoon ne ba may dem ci géej gi booba de liimaan ak lislaam ak lixsaan ñëwuma ci nabiyul mursal ñëwuma ci ko malakul muxaram kon la ko taxalu jóg ñëpp war nañoo xam lu mu doon ndax laata mu fi bàyyi ko fekk na mboolem seex su mag sépp ñuy dégg seexal na leen tofal mbooloo seen ginnaaw dooru jug bàyyi kër ya bàyyi njaboot bàyyi fi lépp dem liggéey la rasulullah te kenn wettiliwu ko kenn gungewu ko ba mu dem ak jàmm mu jël siwaat dajeeg natt yu mett sànni ko ci gott yu lëndëm mu ne fa cundum ci biirub àll muy natt yoo xam ne kenn mës koo gis ni ko Cheikh Mamadou Bassirou Wasse waxe ba àdduna ne kenn mës ta gis natt yi ñu teg Sëriñ ku ko kuñ ko teg te mës ta saalit mës ta toqi mës yox yoxi loolu nag kon ñëpp war nañ ci fàttaliku bis bii nga xam ne mooy màggal gii muy def màggal Tuubaa gii ñuy def ba mu ko njëkkee woote ca njaareem ndax danaa def saa su accès natt bi suñu borom da koy fulaat mboolem nattu bu ñu ko mës teg ba waxtu wa bu heure bi dellusiwaatee dañ koy tegaat nattu bu ñu tolloo ba ca at mujj ma rek te sëriñ bi saa suy agsi da ko yëg waaye ni ko ñëpp di yége ni la ko yége waaye da koy dékku ba ci at mujj ma nag fi mu toogee di ko waajal rek suñu borom xamal ko ne nattu yi jeex na sax pay ci ne ko pay gi itam ni nattu yi daan demee rek ni lay saa su waxtu yu agsiwaatee nu nattu nu nattu yi daa toll rek sax pay dañ ko yeesalaat kon loolu waral màggal saa su agsi mbirum Sëriñ Tuubaa gën a nag bis ba ko njëkk a woote ca njaareem bi yëpp ne bis suñu borom xamal na ma ne jeex na sax pay des kon nag saa su ak seetee na ma ci ñëpp santale yàlla ba mu ko wootee rek ca bis ba fekk na am na kenn ci taalibe day dox ci njaareem borom bu génn lëg gu rafet mu jàpp ko andi ko sëñ bi jox ko àddiya ndax taalibe yi lépp luñ gis nag sëñ bi lañ ko gën a yéene fekk sëñ bi di waxtaan sëñ bi nee na lëg gii de xanaa mel na ne jaaxle na lool ñëpp ne teg mu daa mu ne ndax daa sori bokkam mu ne nii nag laa meloon ci biir taat tubaab yi taalif ci xasida tudde ci biir xasida ga mu mu tënk ci al arnab arnab mooy firi lek ci arab allahumma yaa man ajabani wa radita anni wa nafaatani wa barakta li ijabatan wa barakatan lam yusbax ila mislihi wala yusbax ila mislihi wa salabta ilayya fi yowmi xatti haasa alqatta القرآن ولسان العربي ومنافع الدنيا والآخرة فيهما فصلي وسلم مبارك على سيدنا ومولانا محمد يا من جعل هذه القصيدة أحب إليك من كل موزون قبلها الإجابة موي ألف جي أرنب راجدي رب دي وردت عني نور جدي ونفعتني باقي دي وبارتني ميرون سنتوار لبرنا لدم كنا يالا سني بروم دفال توفيق bañ day yéeg tawféex day ci ngërëmam te may fàttali dama doon wax bu yàggul rek lépp itam ñu du ko sellal fii nag loolu laa fi gis ndax jataay yi kat bari na lool waaye war nañu xam Sëriñ Tuubaa li ko taxoon jukk ñu ne tam ñu xam li ñu bàyyi ci sëriñ bi te yaakaar kenn du ko fooyee. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh